ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf roube national gi borom pastef woote woon démb ngir tànqal borom réew mi waa réew mi wuy si nañu ko ci ak pastef l'observateur nañu concert casserole ak cornay wote yu Ousmane Sonko santaane woon démb ba 20 h gaañi topp nañu ko ci bu baax a baax ci Ndakaaru ak ci région yu bari yu nekk ci réew mi kubéeri cin yeek xotti bool yeek poti weñ yi journal bi nee nañu dara desul démb ci guddi Vox Populi ne ko méga ñu dund démb Ousmane Sonko mi woote woon moo ci jiitu ne gis nañu ko mu taxaw buntu këram ci cité kër góor gi yore ñaari kubéeri cinam di jàpp gàmm le témoigné bind ne Sonko matal na bersem journal l'info di ko dëggal ba xëy di ñu wax moom it ci xëta mu njëkk ne muy Ousmane Sonko di waay yeewi askan wi li ñu bëggoon démb ci seen concert casserole yi amee nañu ko ni ko bëggee woon bi vingt heures jotee kandang-kandang yeeg keseng-keseng yi dañoo meleen na tulleeg bi bay a xuttiku le gis ne doolee casserole moo feeñ démb ci manifestation bu opposition bi le quotidien nañu Ndakaaru bari woon na biruy démb ci guddi ci concert casserole yi source ne ko ak fitna ne jàppante bu rëy moo am démb ci guddi ca bu ndakaaru ci diggante étudiant yu intercoalition yeewi ak wàllu yu doon tëggi bool ak yu étudiant yi APR yi doon bañ ko fa tëgg ba am ku ca blessé doonte sax gaañu-gaañu ya taxu ko woon a noone Maguette directeur général bu centre des œuvres universitaires bu ndakaaru di kudd ay kàddoom ci xët mu njëkk bi muy wax ne képp ku fi def lu yàq ak ana jàmm ji ci campus social bi na la leer ne organe universitaire yeeg judiciaire yi ko war a régler danañ ndakaaru direct news xamal ñu ne gaañu topp nañu bu baax a baax ndigal li leen Ousmane Sonko joxoon manifestation yi ànd ak fitna ñoo randu démb may manifestation ci ambiance nit ñi génn nañu manifester te bal tàkkul tigga tojul xeer naawul grenade lacrymogène jibul gis ñu fi benn jàppante ci diggante manifestant yeek takk der yi lii soo koy lii lépp bokk ci élection législative yi le vrai journal li muy xëy di ci laaj moo di ndax dee su ko gi ci géopolitique bi wàññeeku tribune ne ko lu mën a la ndax union sociale libérale ngir ñu suspendre arrêté bu ministre intérieur gi doon wax ci modalité parrainage yi ci élection législative yi ñu waroon ko atte renvoyé ko ba tey ji ci midi léegi nag yéenekaay bi nee nañu bu dogalub cour suprême bi génnee tey ci midi jox dëgg ñoom maître Abdoulaye mu di waa union sociale ak libérale bu boobaa moom dañuy reporter élection législative yi ci réew mi ci lu amul benn werante réew mi quotidien nañu werante sax moo ca am ne waa présidence de la république def nañu démb communiqué di weddi xibaar yi tàmbalee jib di wax ne waa union européenne dañoo sàkku ci Sénégal mu reporter élection législative yi palais de la république loolu amul wootee député yi mu di élection législative yi dina am ci réew mi ci date bi ñu ko jàpp ñi ñu jàppoon ci manifestation yi fi woon ajjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin te ñu leen doon tuumal ak attentat li ñu doon waajal ci réew mi l'observateur nee nañu am na lu feeñaat ci enquête ba ubbil yéenekaay bi ma dikkee Jóob di commerçant bi jaayoon gaay yi fumigène yi jàpp nañu ko ca boori poorum Dakaaru fa lañ ko jàppee keneen ku ñu jàpp tawaa sûreté urbaine jàpp ko l'observateur nee bi ca la na ci coow li nag keneen ku ñu naan Aliou nit ku ñu naan Ousmane Seye ñu ko yooyee Akheton mooy commanditaire bi maanaam moo jiite yëf yi këru courant gi ci réew mi di Sénélec l'observateur nee nee nañu doyen des dóor na ko ab mandat dépôt ba ñu jël ko yóbbu kaso waaw enquête dina kay nañu guerre totale moo am ci réew mi jamono ji gis nañu démb ay concert casserole ak ay corne woto yu rëy ci réew mi ngir ñaawloo ne Macky Sall yore réew mi am na it lu mat fukki nit di ñu jàpp keroog ci yi fi woon fukki fan ak ñaar ci weeru juin ak ay tuuma yu garaaw yu ñu gàll ci seenu ndodd gis nañu it société civile bi ci réew mi sol aw dàllam di wi li pande Macky Sall ci bitim réew fii ci réew mi ca diiwaanu sébi xotaan journal Libération xëyaat na ak ñun ca la fa xewoon mu di xaleb juróom-ñaari at bi wujju peccorgo yaayam rendi woon ci ab tabax bu yeggul wujju peccorgo yaay je ñu naan ko asufal jëf ju ñaaw joojee nee na ci enquête ba bi mu wax xale bi ne ko kaay ñu ànd booba yéenay raykool amoon nee na lim ci jublu woon bu weesoo naqaral yaay ji moo di dafa gis ne xale bi heure bu jotee ak doomam rek xale bi la ñuy jox dëgg